jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci seen site 28 pro TV ñu ngi am mbégte ànd ak yéen fas yéene defal leen benn découverte di gëstu ci li nga xam ne moom moo jëm ci càmm gi mbokk yi xam ngeen ne li des suñu diggante ak tabaski bareetut suñu mbokki éleveurs yi ci fas yéene ñëw seet si leen waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom moo jëm ci ay projet waaye itam jëm ci opération bi nga xam ne moom la ñu def ngir waajal bés bu mag boobule jafe-jafe yi ñu ciy jànkonteel dige yi ñu leen ci dig digal waaye tamit li nga xam ne moom moo jëm ci ay financement lu jëm ci wàllu boobu li nga xam ne moom mooy càmm gi loolu yëpp nag ñu fas yéene ñëw fii ci Touba Ndindi fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan bu yaatu boo xam ne ñu ngi ci seq ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk daral bi bokk na ci sunu ganu tey di docteur Alioune Sylla moom mi nga xam ne éleveur la bokk ci yi nga xam ne ñoom ñoo jiite kër gi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu càmm gi mbokk yi topp leen ci seen site pro ñu ngi lay nuyu docteur Sylla di la dalal ci seen site 28 maa ngi leen di fay di leen sant bu baax ah di leen dalal ci bisimilah rahmaani rahim ñu waxtaan waxtaan wu neex boo xam ne naa am njariñ boo xam ne ñëpp a ciy jëriñu. ah docteur euh, tey pàcc bi nga xam ne moom la jëm moom moo jëm ci wàllu càmm gi ndax ci daral bi la ñu ñëw euh, sàmm euh, ku bëgg a nekk ab éleveur wala càmm moom fan lay tàmbalee. dëgg-dëgg pour nga nekk ab éleveur lu waral sàmm gi. waaw xam nga euh, danga wax sàmm ñu bari ñu ngi ñu ngi jaawale sàmm ak éleveur bokkut sàmm day yore juróom di topp àll bi di sàmm ak di ñëw di dugg di topp luuma yi di jaay ak di ak di jënd éleveur bi nag moom day seet ay li muy jënd ay raasam su dee xar lay def wala muy def nag. Eh, wala mu def ay hollandais mu wut place am boo xam ne bii da defar ba mu baax mu tànn yi mu bëgg mu dugal leen ca wut xontam bu doy ut ku koy toppatoo mu toppatoo nag jur gi utu vétérinaire am di defar bu nga xam ne mu engraissé soit mu embouche lay bu engraissé di jaay wala muy xaar muy produire muy jaay aussi ak di am meew. tax loo tax ñu daan sàmm na moom day topp àll bi di sàmm jur gi di leen dam pour ñu dund bu ciy jaay di ci jaay bu ciy toppatoo boppam di toppatoon mais moom càmm la tudd mais kii nag moom day ut place am gisoo comme nee ma def comme ni sama xarit bi def maa ngi la ko présenté Konko jaay la tudd ci daral gi dal nekk ak man ak ñeneen ñoo xam ni ñi daral gee ñu intéressé sëriñ bee ñu intéressé ñu ne fi defar fi suñu jur indi ko fii comme li nga wax def espèce genre genre genre yoo xam ne ñun dañuy yar dañuy yar daal di engraisser di def embouche léeg-léeg aussi ñu am yuñ ci jaay jëndaat yeneen léeg-léeg aussi nga xam ne ñu daal moo loolu daal daf ñu intéressé ñun def ko suñu profession. alors kon mën nañu waxtaanee kon ci li nga xam ne moom la ñuy ponkee mooy secteur de l' élevage dëgg-dëgg mm-hmm. la nga xam ne moom moo ci nekk comme euh, euh, loo xam ne dana la dana la jëriñ yow mi nga xam moom mooy éleveur bi. waaw non ma élevage élevage li mu li am ci njariñ Sénégal nit ñi dañ ko xamul sax élevage. suñ ko suñ ko organiser woon correctement nit ñi daañu dund danañu am jàmm même autosuffisance bii ñuy wax sax day day régler certains problèmes mais malheureusement euh, réew mi dañ dañ dañ lay dénk benn benn benn benn benn benn ministère wala benn dara yow doo dox d'abord seet li nga xam ne lii bu ma ko defee ànd kook ñi nga xam ne ñoo koy def mu jag mu jag nono non da ngay am un plan programme boo xam ne bi bon day naan moom léegi euh, président defal na ko benn benn benn benn benn organigramme boo xam ne ca lay topp mais président am na loo xam ne mënu ko xam ci àll bi président am na loo xam ne lii kii dundu ci àll bi fii yori nagam ak ba di ko di sàmm boobu président nekk bul président président mënu ko xam donc mënul a partir de là ñuy defar ay programme nañ ko bàyyi ministre bi daa war a wàcc ba ci ñi nga xam ni ñooy sàmm mu toog waxtaan ak ñoom mm-hmm. gis nga bu ko defee am na ñoo xam ne da leen di xeeb ñoo koy jàngal ni ni ñuy defee càmm mm-hmm. mais defu ko dañuy toog rek di def seeni i CRD seeni seen i CDD naan war nañu def nangam war nañu def nangam def seen i tournée bu ñëwee tournée dañuy dugg ba fii ci daral gi dem fule seet ña ñuy seet daal di génn dem kooku doo xam dara doo xam loolu lu doxal. alors pourtant moom depuis sa nomination ñi ngi ñë ñu ngi doon wax ne moom euh, ku xam euh, li nga xam ne moom lañ ko jox muy euh, élevage bi certains ñi ngi naan vraiment. gis nañ ci suñu bopp ndax jàppale ñu ko mbiru soo daaw mën naa cité daaw tabaski bi eh, ngeen ngeen vraiment ngeen ngeen apprécié woon bu baax a baax ni mu doon liggéey alors maintenant dafa am ay jafe-jafe wala bokk ci doxalinu ñenn ñi la. am naa jafe-jafe dégg nga keroog euh, le responsable national de kii laal li mu ko wax am na jafe-jafe parce que mu yow boo nekkee xale nga ñu jox la service bu toll nii dafa am ñoo xam ni foog da wax ak ñoom. en dehors en dehors de son métier d' avoir di génn di wax ñenn man xam naa bu baax man man sama doom la parce que man bi muy judd maa bulal il est né à bulal man j'ai bulal en en soixante quinze baayam Kelli Sadio sama xarita ak ñoom Kelli Mbella la mais il cherche pas am léeg mu ñëw fii mu dem yoonam man xamu ma may yëm ma ko xam mhm. parce que man aw ma aw ma lu mu mën a jëriñ ndax man retraité boo xam ne maa ngi nii toog yor sama ñetti bëy ak sama ñaari xar ndi sàmm man man maa ngi maa ngi toppatoo sàmm kon maa ko mën a jëriñ. mais moom mënu ma jëriñ. kon souvent day ñëw ci zone bi te du fi jaar du leen ko du leen waxtaan ak yéen. ah man de ñun man gis ma ñu a fi ñu waxtaan daal léeg-léeg mu jaar dem ci ay mbokkam waxtaan ak ñoom dem mais fii ñun ñii wax dëgg yàlla ñëwul fii laaj nu ñëwul fii ñu man jéem nañ ko approché sax parce que man xam naa ko wax naa ay mbokkam ne leen mais ñun mën nañ ko dimbale bu ñëwoon fii ñun xëy na ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay sàmm lañu sàmm moderne mais mën nañu waxtaan ak moom. parce que fu demee ni fii tey kii tey daral la goo xam ni amul benn daral bu mel ni Sénégal c'est cinq cent mètres carrés clôturés avec de portes et tout des gardiens fii on a au minimum ay vingt gardiens yoo xam ne fi la ñuy fanaan kenn du fi sàcc wala buñ ko sàcc dañ koy fay fii nit ñi dañ leen organiser ñuy ñëw di jaay di jënd ñenn ñi jënd ay place def fa seene xar ak seeni nag di def embouche mais am na yoo xam ne su ko ñëwoon approché ñu on a des idées yoo xam ne mën na mën na mën a développer à partir moom mënoon na jël fii exemple rek mu créer des des daral moderne mais daral yi ngay dégg ci Sénégal ak da ngay def ndànd fooy fooy lay doon rek. kon mosu leen am visite ministre bi fii. ah mos naa ñëw fële de man. non fii ci daral bii la fii visite officielle. Hmm. gisuma ko il l'a pas fait te il devait le faire. da nga ñëw toog seen daral nu mel mu ànd ñu visite daral gi mu woo le chef de daral ñun ñu ci topp di ay conseil technique kii di adjoint yu ak yooyu ñu wax ko li fi xew wax ko it ni nga xam ne bu ko doxalee mu dem ñu dem nañ fi ba def benn mbootaay boo xam ne ñun bëggoon nañ départal suñ bopp ci loolu daaneel kii mu ngi ne réunion nañ fi boo xam ne réunion boo xam ne bi man dem naa ba proposer ñu am mutuelle ci bunt bi parce que fii ñun dañ degeen daara Jolof fii chaque samedi boo fi ñëwee dimanche ñi fi ne ñëpp fee ci mbedd mi dañuy dem daara. mutuelle bi lu ngeen ko doyoo. dama ko dem ko dama créé boo xam ne bii pour mu nekk sa apport boo xam ne bi day nekk day nekk bor boo xam ne bi mooy gën a gaaw ci julo parce que li ma la wax bu dimanche matin ñoom dañuy dem daara ñu jënd fukki xar ñu jënd ñaar fukki xar ñu jënd nag ak yooyu ñu dàq mu ñëw bu ñëwee la lundi la mardi ñu placé ñu jaay kooku tey boo amoon fond boo xam daan na ci buntu bi. boo ñëwee daa boo ñëwee ci mutuelle bi ñu jox la lu ma lu mat huit cent mille ou un million nga dem. Mm-hmm. te mais yaakaar ngeen ne yéen daral bi mën na génne fonds buy tax mutuelle di fi am. wala lu lu tax ngeen bëgg a créer ko mutuelle li ma la li ma mu suñu poos fii ci de millions am na fi gaa yaa ngi jënd li fi ne ci bien daam. la kon. ah waaw ah, non il faut que yu demee noonu moom laa la wax nag il faut que yu demee noonu moom bu ñëwoon tey parce que ki ki yor xaalisam fee di jën dem xam nga xamagul loolu moom mais mu ngi dend ku amul ñu ngi daan nag ñu ngi daan ñoo xam ne dañuy xëy fii di dàq dara am na ñoo xam ne am nañu dañuy jënd di jaay mais suñu fexoon ba nga xam ne dañ koy dañ koy organiser ba nga xam ne léegi ñi fii ne ñu xamante di jàppalante ñi mag di jot mais ñi ndawit ñu leen di jàppale ñuy jot ku fiy xëy si fii am sa dépense ku fiy liggéey ñetti fan ñeent am loo jor li ma doon expliqué noonu par exemple nee naa la soo jëloon fii tey dem fee fekk un un petit un petit commerçant bu ndaw ndaw léegi mu mu dimanche samedi jot nga jox ko trois cent mille mu dem daara mu jënd dix xaru trente mille xam nga xaru daara mooy tane. il vient le lundi mën na ko jaay ay xar trente cinq quarante mille kooku dix dix xar ak ak quarante mu am mu am léegi cinquante mille mën a joxe dépense mu mën a noyyi parce que il vit au jour le jour. day jàpp xaram fee ñëw jaay bu jarul léeg-léeg du am dépense sax mais kooku boo ko defal noonu tey du def bénéfice bu mag. bu demee jënd dix xar à trante mille bu ñëwee mu placé leen à trente cinq mille facilement avant mardi mercredi mu jaay ko. delluwaat waaw bu ko de day xaar vendredi léegi bu ko jaayee mu delloo mu delloo mu dem ci buntu ba mu delloo ko xaalisam mu moom mu am cinquante mille am téye léeg-léeg sax di ca korkoral di ca dund mm-hmm. bu sax bu vendredi mu dem lebaat mm-hmm. fii moom da ngay da ngay jël vendredi mardi mercredi nga fay. alors léegi pour ñu revenir un peu en arrière par rapport ak ak journée nationale de l' élevage bi nga xam ne nii eh, c' était donc euh, le département moom moo ko organisé woon euh, fa leen ko dalalee woon bokk yéen après journée boobu noonu. lan ngeen yaakaar ne moom moom moo leen amul intérêt ba nu indi ko fii gis ngeen ci seen bopp wala bien avant am na lu ngeen ci xam ne moom for ngeen ko ci tuuti te mu intéressé leen wala. mais journée bi ñun demuñu sax. dana ma waral loolu ah mais ah, ah, ah, ah yoo xam ne yi xamoon nañ ko organisé dem yóbbu ko kayel nit ñi tër tër di fa dem bu ñëwee le président fait son discours ñu félicité te ñu dem on a rien vu waxuñu ne am na projet dañ leen defal nangam au moins ñu xam lu ñu luñ ñuy doyee wala ñu woo ñu dans une salle woo da daral gu nañ jël fa dix bu ñëwee ñu toog ñu mën a xam problème question daral fii woo euh, quinze de éleveurs yoo xam ni c'est des grands produits dañuy jënd ñu toog ñu wax defuñu ko dañuy ñëw dajale foofu rek togg ceeb bi dul jeex ak yàpp bon alors ils ont fait leur discours. et pourtant fii am na ay producteurs dëgg-dëgg. mais yow fii fii fii fii fii li fi ne li fi ne li fi ne gis nga moom bu ñëwoon bu li ma la wax toog fii bañ bañ tëggal ko programme a partir de saa ci lay defaral daral yi day créer daral gu mel ni daara mu nekk daral moderne nga xam nit ñi dañ fay ne am ay place yu baax ñu leer ruelle laa ñu génne ko def ci ndox def ci tout ñun ñu ngi ni am nañ jàkka ak yëpp fi ñun rien na nu manque boo génnee nii léegi nga seen ne marché la tabax nañ ko dañ ko préparé pour marché hebdomadaire boo demee fee jàkka ju yoo xam ne ji sëñ juma juma dañ ci julli sax juma boo demee fii am nañ ndox am nañ ñun macha allah li ñu desee mooy am koo xam ne kii am nañ foo xam ne fii mais mën nañ fay liggéey muy produire. Mm-hmm. ak ñiy liggéey ci daral gi fii ñu mën a am luñ jàpp. parce que am na ñu fi xëy ñoo xam ni dañuy xëy daanu seen doole. alors donc mën nañu wax ne kon da ngeen amee li nga xam moom mooy manque d' assistance autoritaire bi nga xam ne moom moo ŋànk secteur boobu boobule ak tamit ci côté maanaam dëkk bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko pour ñim leen a yéen tamit dooleel ci démarche yooyu noonu ngeen di def. non dëkk bi moom mënuñoo xam loolu ñun ñoo ko xam moom muy suñu ministre de tutelle bu ñëwee ñu wax ak moom loolu mën nañ ko régler parce que dëkk bi ñu nga ci xëy na ñu nga leneen ba nga xam ne léeg ñu ci bari duñ tal seen bopp mais ku am daral gu mel nii ci Sénégal boo ko wëree amul boo demee Dakar foray ba ca mbedd ca ca yey ne nga demaa Thiès ñun rek ñoo am daral goo xam ni mënoo fee dugg guddi c'est sécurisé et on a des agents de sécurité qui montent la garde ah fi ñuy fi ñuy reyee dañ koy surveiller kenn du fi rey lu ñu xoolul du ñu lekk loo xam ne vétérinaire xoolu ko tout ça on a fait ces programmes soo demee yeneen daal dañ gars dañuy lekk ak dañuy dañuy jël di jënd dem rek. ku fi indi coggalam tamit ngeen xam ko. ah waaw. fii lu mu dugg nan ngeen nan ngeen koy xamee. mais bu duggee fii y a des gardiens doo fi dugal coggal te waxoo gardien. bañ xam da ngeen recenser nombre de bêtes yi mu am wala. ah évidemment parce que tu payes tu payes ñu man mii fi mu ne ak fi ñu ne ñun ñu yor nii mais suñu mbaar yi weer wu dee da ngay fay xar téeméer nag 1000 francs ci la ñuy fay gardien yi. ci la gardien am seen kees ci la ñu mën a tey bu ñu sàccee sa xaru quatre-vingt mille ñu génn xaalis léegi fay la. bien organisé. ah voilà ñun au moins def nañ loolu. mais nag amuñu amuñu loo xam ne lii koo xam ne bu ñëwoon parce que i bëgguñu yem ci lii. bu ñëwoon tey bañ def ko defalaat ko beneen planning boo xam ne bi dañu bëgg fii moom mu mel ni ni ni ni Touba mel ci ci ci àdduna bi lañ bëgg daral gi mel ko. Mhm. daralu Touba dafa war a progresser. alors mais nag euh, euh, bu ngeen ko gisut moom seen ministre tutelle. Euh, ci département bi am na ñu ko fi représenté service am am na fi. yéen a fay dem pour euh, euh, maanaam poser leen seen i doléance wala ngeen sensibiliser est-ce que yéen a ngi leen rendre visite. mais ñoom ñoom danañ fay dem xamante nañu danañ dem ci ñoom ak yooyu mais ñooñu mënuñu ko régler problème bi ma la wax seul le ministre moo ko mën a régler da ciy gagné. parce que moom tey bu fexeem ba créer benn daral goo xam ne gi comme ni ma la waxee mu démarré fi à Touba ne bon léegi je vais Bambey Diourbel Mbacké Tamba fu ne mu defal dara lu mel ni moom loolu lañ ko laaj au buy génn mu am lu mu réaliser mais qu'est-ce qu'il a réalisé xaalis jox ko ay ay sàmm ñu jaay mu jeex ko na jël sa bénéfice moom bu wàccee lan la lan la lan la defal réew mi par contre nag lii bu ko créé woon day créer emploi les gens vont venir ici y a de l'ordre ñiy jaay di jaay ñi jënd jënd ñiy leb di dem jënd jaay am bénéfice daf fay am. fii da ngay créer benn source marché boo xam ne bii day génne loo xam ne lii mais ñëpp ciy jëriñu fii boo demee fee am nañu yorul ay xar dañuy ñëw di teefonke mm-hmm. léegi bu ñu gisee xar moo xam ne mën nañ ko jënd ci trente mille ñu jënd ko daal ko yoraat ni ngàbb ku la boo ko tamit trente deux mille mu jaay la am deux mille francs mais léegi am na ñoo xam dañuy wàcc lu ñu yor dara moom laa wax léegi bu ko organisé fii ñëpp ay am ku ne da nga yor sa bari waaye yow di nga am loo mën a loo mën a dunde ñu ngi ñu ngi jógee ci mbas mi nga xam ne mooñu bëgg a rey amuñu amuñu loolu loolu projet na nañu fi seet ñi nga xam ne ñi amuñu doole amuñu xaalis ñu toog et puis waaye booy bi nekk deer mu ngi koy def waa foofu dinañ ci ñëw sax gis na ko dinañ ci ñëw euh, gis naa ko mu dem marché be mhm. ma ngay jox jaaykati jën yi jën gis nañ ko waaw ñooñu dañ ñoo gën gis nañ ko dinañ ci ñëw sax xam naa ne mbokk yi ñuy topp ci seen site 28 pro ñu ngi am mbégte ñu ngi dalal docteur Sylla alors euh, ci loolu dañuy ñëw euh, ci li nga xam ne moom mooy opération parce que nous sommes à quelques jours ci tabaski bi ah. par rapport ak at yi ñu weesu mhm. ci biir nawet bi la tabaski bi daal nekk jur gi danañ am lu ñu lekk bala ñu yegg si alors yan difficulté fi ne ni moom ngeen jànkoonteel par rapport ak li nga xam ne moom mooy des ci fan yu néew ci njaay mi gën a dox est-ce que euh, yaakaar ngeen ne maanaam jur gi euh, dana yomb ci askan yi yéen ñi nga xam ne yéenay jënd wala yéenay yar di jaayaat naka ngeen di dundee mbir moom la. jur gi du affaire bi du yomb ren du yomb ren parce que dimbalawuñu kenn ministre bi dund bi mu fi joxe fii dafa dañ dem jënd mboq moo xam ne bii gerte lañ ko defal xotti gerte mais xam dafa euh, saako yi dañuy xeeñ sax ba pare nañ jox la genn wàllu saako. yow genn wàllu saako genn wàllu saako aliment yow mën nga boo yoree sa quatre ba tête noo koy du ci dundale xam nga yooyu c'est du saupoudrage moom waruloon nangu loolu ba mënul jox suffisamment de vivre aux éleveurs mais na ko téye mais ñu ngi joxe nañ woy joxe nañ génn nañ trois milliards léegi jënd nañ ko jënd nañ ko jox jur gi mais trois milliards est-ce que c'est suffisant parce que euh, jur gi dañoo bari wala mu demoon boog chargé quand fekk borom jur yi ba nga xam ne léegi sonn nañu nga xam ne tu as avec quatre-vingt-sept la baag yooyu yaa ngi kii mais ñu wàccee la au moins vingt quarante sac mais ñun da nga ñëw fii ñu indi ni bon yow yàq yene bokk benn saako léeg-léeg yàq kenn benn saako saako saako saako vingt-cinq kilos mën nga cee dundal say say sa disque. dañ leen koy jox gratuitement wala dañ koy. dañ koy subventionné waa ab. mais subventionné su da lu baax ñun en tout cas aliment bi ñu indi fii aliment bu baax. yaa ngi bëgg ñu ñu engraissé yaa ngi bëgg ñu def embouche ngay ngay dem di tànn une mauvaise qualité am liñ fi indi fii kii la kii la xottu gerte lay xeeñ xa boo ko nee day am xet kooku xar xar xar moo jëlee quatre cent mille huit cent mille di nga ko jox loolu. ah loolu baaxul war ñu ko jox. te bu ñu ñu ne jox nañ dund gi ana dund guñ joxe fii su am ne ay ay ay ngeen sax xanaa mag kii man man man danañ ko lekk par par mois. ok alors na kon donc li nga wax daal moom mooy que ni tabaski ren bi xar du am du yomb par rapport li ministre bi wax ne ku ci nekk da yàpp jàpp ne ne moom ku ci nekk da nga am xar. man daal dégg naa nee na téléphone na am éleveurs yi ni ku ne na ko defal liste pour pour mu xam ñaata nga am ak yooyu. mais moom dafa xamul ne yow man bu ma la defalee lépp ma nee ca ca Louga colli yor ay xar yu laaxoñ yoo xam ne daanaka xar yi rey mu dee reyul mu dee la ma defal la liste yooyu mën nga ci basé diw jox na la liste huit cent xar ki jox la sept cent ki jox la kii nga calculer muy deux millions de xar nga ne am naa mais na déplacé wu. ñun defu ko. non ñun ñun ñun ñu koy def ñun ñun du ñu ministre di ñun kay li ñu yor ñu ngi koy sàmm ñun di ko defar. deful leen ko liste bi mu leen wax ne leen ko jox. ñun wax ñu ko la wax éleveurs yooyu gars yi waaw ñooñu wa loolu la wax man la ñu ne i xar dana baax wala duñ jaral nga ko engraissé kii mu ngi mu ngi jënd xont gur gu ne ay ay mboq ak yëpp la xaram yi lekk comme ay buur parce que bëgg mu engraissé mais le pôle qui est à Louga nga woo ko fekk ma nga ca booru déeg ba nga ne ko recensement mbocoor yeeg la lay jël il te donne tout toute une liste boo xam ne xar yooyu boo ñëwee fi ku koy jënd. nit ñi am jafe-jafe. waaw ba pare it xar yooyu bu ñu toogee léegi taw bi gis nga ni mu demee pour nga tra léegi kenn ñëwagul est-ce que boo leen boo leen boo leen transhumé ñu ñëw du ñu wala ñu sonn tout ça il faut calculer ça. Mm-hmm. mo tax. d'accord donc comment comment sauver donc secteur le li nga xam ne moom moo moom la ñu dëkkmal nan lañ ko mën a sauver yéen selon vous ak expérience bi ngeen am ba mu ba ba waral ngeen créer lu moderne fii nii peut-être am ngeen ay idées pour quand même euh, soulager un peu population bi nga xam ne ñu ngi leen di euh, ñu ngi ñu ngi yaakaar ci yéen. ni ni ngi koy sauver mooy li ma la wax rek tey bu ñëwoon fii ñu dax wax loolu ñu créer ñu créer dara moderne xoolal côté bële mën naa la fa génneel lu ma lu ma lu ma cent mètres yoo xam ni. mën nañ ko créer bu ko def ñu ne waa daral gi léegi kaay leen ñu woo chef daral gi ñu ni léegi commencé leen di jënd xar def embauche ñu jëndal suñu bopp ñun mën nañu xont bu baax ñu xont yéen bu ngeen ñëwee ñu fexe ba nga xam ne à Touba dañ ci alimenté lu ba bu ñu ci defee quatre cinq six ñu mën a ñu mën a jaay waa Touba. puisque y de l' espace. y a de l' y a de l' espace s'il nous donne les moom mënoon na ñëw xool espace bi mu ne yéen mën ngeen jënd xar di yefal ñu ni ko wëy mais yow tamit jaay ñu élément ñu ni wëy ñu daal di defar. ñun mën nañu léegi mën nañu fi defal trois mille théâtre daral gi boo ko def daral gone di jaay mais boo bàyyee rek éleveur bële rek mooy dàq ñëw jaay wala ko yëfal xaram daral yi dafa war a instauré loo xam ne dañuy dañuy jaay dañ jaay ay xar. mio mio war na fi installé foo xam ne fii les hollandais la nag yooyu ak yooyu mais nga dagg fee indi sa lu ma vingt hollandais yu góor ak yu jigéen daral gi moom ko ñu jël ko di fay ñuy rat daral gi di jaay meew ci dëkk bi. mais kooku baax na. di jaay soow. mais mais ana dara gi lu mu def. dara goo xam ne gi yow da ngay xëy toog rek boo jaayul ñibbi. mais donc euh, tey maanaam euh, euh, sàmm ba nga xam ne ma nga nekk ci àll ba yorub coggalam bu bëri est-ce que am na droit ñëw rek at jiital sàmm juróom jékki-jékki rek dugg pénétrer ci biir dara bi ne damay jaay samay xar ci prix yoo xam ne nii maanaam yu ko neex lay jaayee yéen yéen du ngeen ko bañ wala boog dafa am ay charte yu ngeen koy tegal. ñemewuñ ko bañ parce que daral gi daral gi kon dañ dañ di jaay man damay jaay lu rëy ki yow nga jaay lu ndaw nga jaay lu baax ki jaay lu bon sa dépend yow yaay ñëw yow nag boo jógee fee yow ah, en tant que journaliste nga jënd xoxomboje yaa xam mais ñun lu ñu leen tere ah loolu ñemewuñ ko di loolu ñemewuñ ko parce que ñun ay Sénégal lañ comme ñun ñoom dañuy jaay dañu ouvrir le marché Sénégal na ne fu neex waay jaay ak ku dugg jaay ñu ko jaay sans sans condition. amul problème amul problème amul taxe. Ah, amul lu muy tax koy taxé nee nañ koo taxé day bañ parce que. Ah, par rapport comme que yéen no ça xam nga li ma tax ma laaj loolu comme que yéen da ngeen fay yor maanaam seen i place. Ah. di fay par mois par euh, tête. bu nekk yéen a koy fayal cinq cent. yéen bu ngeen seetaanee loolu noonu alors que ñoom ñu ñëw jaay seen kaw par rapport li nga xam ne yor ngeen ko fi lu yàgg. du ngeen indil benn euh, jafe-jafe. non mënu ko indi parce que ñun place dañ fi am moomuñu dara bi ku mu neex nga ñëw dëkk ut si place. ah loolu mooy tax. Mhm. ku neex ci Sénégal nga ñëw damay jaay parce que surtout que bu tabaski jotee moom yow sa sa buntu kër sax dañ fay jaay kooku te dàqoo ko kooku kooku nooy dàqee na ci daral gi au contraire bu daral gi day xumb ñun ñoom bu ñëwee fii dañ leen di man fi mu ne fi mu ne bu tabaskee boo ñëwee sama mbaar mi nga ma fekk may feexlu bu guddee ñoom ñëpp fi la ñuy fanaan mënoo mënoo ko bañ. Mm-hmm. fi la ñuy toog lekk ak yooyu parce que si ay gan la ñu rek loolu day faut il faut que. nit ñi xam ay kii. Euh, léegi ñu ñëw ci projet bi nga xam ne ni moom mooy soxal wàllu financement yi euh, comme DER euh, dégg nañ na benn projet boo xam ne muy jëm ci financement de l'élevage loolu yéen yëg ngeen ko. ba man de yëguguma ko ci DER. Mm. yëguguma ko. seen naa ko daal mu financé ay boromi jën waaye bu ñëwee it tam ñu organise ko noo xam ne baaxut comme li ma la wax duñ jëriñ dara parce que day ñëw fii rek mu financé quelque gars rek mel ni man un peu influent politicien financé kii loolu loolu du yor li ma la wax moo baax da nga koy da ngay teg fee bureau bi ñi néew doole te dem daara parce que ñi ñi toog fii di néew doole ñoo ñëpp mën nañ lijjanti de gis nga di nga gis ku toog fee yorul dara boo ko joxee fii deux cent mille léegi mu génne ci mu dépense une semaine u këram mais kooku aussi mbapat moom bu koy ñaane ñooñu ngay créé mutuelle bi teg ko fee ci buntu bi ku bëgg a leb nga ñëw nga leb ak garantie nga dem fa samedi dimanche nga ñëw ñun fii boru bor boobu muy wax der sax bi gën a gaaw ndax ñun luñ leb luñ leb luñ leb dimanche balay àllarba mën nañ ko delloo kooku moo gën mais nag loolu day ñëw comme li ma la wax bu toogee fee ñu koy calculer ci bureau yee deer bee du xam lu ñuy liggéey na deer ñëw fii ñu waxoon loo xam ni ñun bu bëggee deer mu dox rek mën nañ ko ko woon. Mhm. waaw donc am na ci ñoo xam ne maanaam euh, yéen euh, comme ni ngeen di dajale nii si euh, waxuma waxi mutuelle bi mhm. nit dana leen ñëw tey posé leen ah docteur wala boog kilifa gi mën na ko dama bëgg maanaam def opération tabaski. Mhm. dama bëgg tant de millions wala tant de mille nga génne ci jox ma ci loolu souvent yéen entre vous yéen a ngi koy def. ah évidemment ñu ngi koy def di parce que léeg-léeg yow da am loo xam ne yow mënoo jënd yow rek di jaay. bu fekkee ne gis nga koo wóolu nga jox ko léegi ay 2 millions moom tam mu jënd andi ñoom ñëpp fi lañ koy jaayee loolu loolu du am benn am benn gravité parce que waa ji da nga koy jox mu jaay jël li muy jël ah la sa xaalis léeg-léeg sax mu mosal la ci dara en général même ñi ñu koy jox duñ la teg dara parce que fii si esprit de solidarité daf fi am aussi dans dans ce milieu là ñoom dañuy dimbalante fii am na fi koo xam ne kii gis boo demee añu comment ku dem mel ni Assane Sène mais mais Assane day jël day jëndi fu ne nag ci àdduna ko ne xam na ko mais day ñëw fii léeg-léeg day jox gars yi ñu jaay delloo ko parce que yooyu c'est dans le cadre de la solidarité mais doo def yow rek ngay kii ak yooyu mais yooyu c'est c'est bien possible on le fait ici ah. am na ñoo xam dañu jox nit xaalis mu jëndi bu jaayee ba pare yow mu delloo la. Euh, donc euh, kon euh, li nga xam ne moom mooy projet yi yi nga xam ne moom la ñu relancer mooy relance économique bi bokk na ci secteur bi nga xam ne moom ngeen nekk wax nañ ci lu bëri ak tamit domaine transport jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi dundee fi ne nii yow da nga yëngut ci wàllu politique askan wi li ñu war a jot comme information wala bokk ni ñu war a doxalee maanaam économie bi am nañ ko. wala boog dafa des ci côté kilifa yi wala côté njiit réew mi euh, ban ban ban ban ban jàngat nga ci am ci li nga xam ne moom moo am. waaw man ni ma ko jàngatee mooy mooy mooy ni ñuy doxalee rek xam nga yaa moo wax léegi ni politicien nga politicien moom man yàlla ñaanatuma yàlla nekk politicien man peut-être je peux être un mais seet naa ba sedd xam ne Sénégal ni ñuy politique man man baaxut. parce que politique boo xam ne bi man damay essayé nu ma la reyee wala nu ma foloo nga des gannaaw ah yow da ngay liggéey ba bëgg a dee on ko ne même pas on te connaît même pas da ngay frustré wu da ngay mer yooyu na nit ki gëm yàlla mu dem liggéey liggéeyam man moo tax ba li nga wax nag ci ci ci ci ci ni muy demee nii c'est un c'est grand problème comme li ma la wax rek moo ko mën a régler ñoom ñi yore les projets nañu ñëw toog ki ngay dimbale da ngay ñëw toog waxtaan ak moom wax la noo mooy dimbalee waaye du ma toog fenn créé nañu nangam rek nangam ak nangam ku bëgg a leb nañ seet yooyu du noonu parce que yow sax xëy na ni ko xalaatee woon ci leb bi mën ngaa ñëw man minga nga teg borom boobu mu woyof ma facilité la ko parce que DER aussi daa bëgg ku ku mu lebal nga fay ko mais yooyu bu ñëwoon fii ñun ñoo koy woon ñoo xam ne ñi bu leen lebal la ñu fay ko ñoo koy woon ñoo xam ne du ñu dara ñun man ma kii day jël léegi lu mat 4 millions taxaw am na ay yu ne fi xam nañ leen. boo yaa ngi dem dara di ñëw booy bu ne nga jox ko léegi léegi deux cent mille bu talaataare mu fay ko kooku nit ñaa ngi liggéey mu et mu jaay am dépense di dund lu da ngeen bëgg nit ñi vivre a ah loolu de au moins moom tout de mu am ngañ fe mais amul capitalu cinq mil mille yu mën a demee daara di ñëw te man mi léeg-léeg aussi bu ma ko mun ma ko lebal ndax may tam maa ngi soox ci li ma yor su deer ñëwoon tey ñun dañu toogee fii rek dañ kii ki kii moo dooñ fi day toog xam na xam na xale yi xam na mag ñoo xam ne ñi ñu ngi fi di di wut si dépense ay borom kër yoo xam yu jub lañu tey mun joxal diw joxal diw joxol diw ni ko nag yow sa deer gi sa xëy na dem ay weer ñun soxla ñu weer ñun mën nañ dix jours yor ñu fay la parce que bu ñu bu ñu retiré liñ ci am rek delloo xaalisam d'ailleurs bu ñu defee noonu ñeenti yoon dootuñu ko leb ndax dañuy dem ak suñu capital. d'accord waaw ndax fii moom loo jëndee xar moo jënd vingt mille daara. boo ñëwee fi mën nga ci am cinq mille kooku soo jëndee vingt xar lu mu doon. waaw dara de. ah boo ko defee dix fois. mu defar dara ah voilà voilà le problème. mais nous on ay dof. Euh, d'accord euh, fàttali ma tur bi euh, góor gi. Modou Ndiaye comme quoi waaw. waaw comme quoi. sëñ Modou Boussa Dieng. waaw alors ban jàngat nga ci am ci li mu wax fii ak par rapport ak yéen itam nan ngeen ci dikkee. loolu dama leen di nuyu ba noppi. di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne bi ñu amee daral ak léegi matagul fukki at am na jumaa di ci julli àjjuma am na marché 500 mètres carrés yi daanaka fees na kilifa yi fu waay mën a nekk ak patron yi kenn ku nekk yaa ngi daw di ñëw di fi wut si place kon mel na ne ñi ngi fiy séentu njariñ li kale njariñ li tuuti mooy dafa mel ni ñun dañ noo seetaan ci génn ci gépp fànn seetaan nañ nu nun de bañ sancee fii ba nëga ni ministre bi ñëw na fi déggunu fi dara lu wax jaar na fee génnaat dem loolu lañ ci gis waaye nun daal nun dara lu ndindi ci ñi fi nekk dend ak docteur Sylla ak euh, kilifa yi fi nekk muy ko mel ne Taaw Ndiaye mi mi mi mi mi mi de daral gi ak ñeneen ak ñeneen ñi ne ci wetam ay jàmbaare ngi fii kenn financé wu leen ci seenum xel ak liñ yor li muy tuut tuut ci lañ nekk di ci dund waaye ñu di tàllal message maanaam ñu jottali suñ kàddu ci réew mi mépp ne nun daal noo ngi fii di dalal suñ xel ci wanagu sëñ Fàllu ñu def ko dara lu ngi dindi muy nun ñëpp noo ngi tàllal suñ loxo ku xool dimbale ci yu baree bari ndax lu même bon yoroon lu bari sax am na luñ mënut am na loo xam ne gouvernement bi moo ko mën moo ko man ci wàllu sécurité gi moo ko man ci wàllu capital bi moo ko man ci wàllu yaatal bi comme ni ko président waxee defaral ñu daral gu moderne noo am ay place yu baax buy taw du seen yaa ngi nii xool jur gu rafet nga fi gis mais buy taw lépp day tooy mënuñu ko mënunoo am jur gi am lu luñ leen dundale am fu fuñ leen def ñu du ba duñ tooy xont bi muy wax nii ne eh, élevage indi na ko fi ñaari nit ñu ne sa ab saako lañ leen boole xotti gerte lañ jël ak yeneen i mboq yoo xam ne wol ko boo ko ubbee yow mii nit ki sax buggoo koo nooyi waxuma laak jur gi nga koy jox kon loolu ndimbal la des na nañ nu gën a xool gën a yaatal nun ni nin ko nin nin ko bëggee wala suñ ko mënewut niñ ko bëggee itam ñu gën noo dimbale ndax kuy dox ku ne bëgg nga ku la puus loolu daal laa ci amoon lu may wax euh, ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, maanaam euh, yar gi alors yar gi mën na noo xar yi euh, day varier ci yan prix yi nga xam ne moom nit fi ne ni bu ndikkee xelam mën na dal ki koy seetaan wala ki bëgg ki dégg bëgg a ñëw yéen naka ngeen dalalee seen xel ci prix bu mu commencé ba jëm fan. waaw nu ñuy mën a dalal seen xel mooy na nit ñi gaaw a ñëw jënd xar yi parce que xam nga ne koo xam ne da nga dem jëndi la nga jëndee xaw a seer nga bëgg caa dara kooku mënoo ñëw dalal gi yomb. actuellement prix yi c'est abordable parce que ay quatre-vingt mille ay quatre vingt mille ay soixante-dix mille ay cent mille cent vingt-cinq mille mën nga fi am xar moo xam ne mi moo gën ci xar yi boo wóor na mën mooy gën sax la nga tabaskee daaw parce que xar yu baax a ngi ñëw mais it doo xam nga yow xar pour mu doy Sénégal c'est des difficultés loolu man li may lancer appel mooy surtout ñi dëkk na nañuy teel a jënd xar te am na am na pexe comme que yéen da ngeen ragal Touba moom ku ragal ne da nga saxar dañ koy sàcc mm-hmm. boo ñëwee fii nga dénkaane ko fii ñu dugalal la ko fii borom mbaar mu sa am ku ne am nga xarit fii am nay garde mm-hmm. ngay fay weer ba weer dee téeméeri dërëm kooku mun nga fi dénkaane saxar cinq mois muy deux mille cinq cent mm-hmm. nga ak ak sa xoon bi sa yëf moo gën. mais di toog a toog a a bañ ne suba nga ñëw ne ma dama bëgg xaru xar mu mu jar deux cent mille nga jënd ko ci cent mille kooku da ngay da ngay sonal sa bopp. Mm-hmm. parce que nit ñi aussi ci li ñuy sonn. Mm-hmm. ci la ñuy wut bénéfice. en tout cas actuellement daal le prix est mu ne gars yi ni ñuy jaayee wax dëgg yàlla mu ngi fi am xar mu baax mu rafet. rafet man sax fan yi rek ñaari fan yi jënd naa fi ñaari xar yu rafet yoo xam ne dama leen gis mu neex ma lool moo jënd leen denc. Mm-hmm. am naa tabaski waaye dama ko jëndaat pour samay doom wala samay parce que toujours léeg-léeg dara bett la waaw nga xam ne du la dikk dara mais boo bàyyee ba nga xam ne léegi dafa këtt ni jonn loolu aussi dafay am problème. voilà donc plateforme bi ne moom la ñuy jaayee xar ministre bi pare wax na ko ne da ngay enregistré xaw ma benn kii site la booy dugg enregistré fa jaayal la sa xar loolu yéen jot ngeen ci loolu. ah moom ñooñu est-ce loolu bëgg nañ ko sax ñun. soxlawu leen ko. a ah, non waaye bu mu bu bu mu wax ay plateforme gis nga loolu moo tax del réew mi nañu bàyyi ay plateforme ak yeneen na ñëw ci nañu wax ak ñoom nit ñu jox leen xaalis ñu jëndi wala nga dimbale ma mën a jënd kii waaye ay plateforme ak ay dugag yi a ah, xanaa ñu nekk Dakar ñoo ne duñ ko nekk. kenn du ko fi nekk ci ay plateforme na bàyyi loolu na ñëw dugg fi génn ñu wax ko ni ñuy jënd xar yi ñu teel a jënd xar ñu yéen itam ñu aviser leen kon ne mën a am xar. il faut ay solution yi ñuy def ci bureau yi ak CRD yi moo tardel Sénégal yow quand tu es ministre de la tu descends sur le terrain tu vas voir le le le l'éleveur le plus profond du pays nga wax moom dan la wax loo xam ne ci sàmm doo ko xam loolu mooy njëriñ bu nga mën a tirer profit ci yooyu wala nga dem loolu l'éleveur le plus loin nga xam ne sonn na actuellement mu ngi toog nii li mu war a penser mooy na fexe na xalaat ñeen ñuy indee xar su yàlla ji tawaatee ñaari taw xari loof nag xari du ñëw ñu ne ti ñëw xari ñëwuñu moom moo tax xalaat loolu mu xalaat plateform ndax xalaat nu mu nu mu déparé léegi dugg àll bi dàq leen gaaw ñu ñëw dandu si parce que suñ dandu si wul ce sera la même crise. bu ñu dandu see tam ba jege sam dund gi tamit day métti. ah la ana du loolu nag la loolu dafa la juume bu dandu si woon bañ jegeñ ko ne mu jox dundu dund ñun bu mu jox dund goowu ñun ñu ne ci taax yi soxla mu ñuy ak ak ñi ñu jaxawante fi comme li ma la wax bu dandu si lu ma vingt. 40 troupeaux mhm. mais il peut débloquer 30 tonnes d' aliment ou 40 tonnes. jox leen ko mu jox leen ko ah, nag ñoom ñu ne fa di engraisser. d' accord nga xam ne bu ñu nee xeeb ñu dugg mais am na ñoo xam ne on risque bu tawee du ñu egg si xar yi dañuy loof. ñii di dee. wala xar moo fa jënd yow jaxate nga sant ngaa bëgg yàpp doo ko tabaskee. loolu lool yooyu réfléchir la loolu la war a mais dañuy toog fee à Dakar ak ay ay ay régions yi ak ay services départementaux yi yooyu yooyu mënuñu ko régler. d'accord merci. Euh, merci beaucoup mu nekkoon euh, sunu pàcc découverte gëstu euh, ci li nga xam ne donc moom moo jëm ci euh, wàllu càmm gi tey nag ñu fas yéene woon ñëw mbokk yi fii nga xam ne moom mooy daral bu nit yi fekk fi docteur Sylla xanaa nag le dernier moo rek ak looy digal maanaam ñi nga xam ne bëgg nañ daal maanaam seen njaboot kontaan. waaw déedéet mooy mooy xanaa di la sant rek te di la wax ne nag lii na siiw na ko ministre bi dégg ministre bi nay dégg ñiy wax ñi koy wax dëgg man soxlaa lu ko dara du ma ko ñaan dara bu moom bu ma may ripaas bu ma kii man baayam laa liggéey naa baala à la maa ngi sant yàlla maa ko mën a dimbale mënumaa dimbale donc ñu mel ni ñun daa war di ñu seet di ñu def baay ñu koy xelal am njàng rek doyul nit ki da ngay am xel xam nooy doxee loolu bu ko defee mun naa am chance bu bare bare bare bare mais bu toppee rek ay ay ay ay théorie ak yooyu ak def yi da day daanu comme ni moromam yi daanoo woon rek ñaan lu ma ko parce man sama doom la xam naa ko moo tax ma ñeme ko waxee dëgg yi man ragal lu ma ko de xam naa ni xam naa ne bu ma gisee dana ma xàmme waaye bu ma gisoon bañ toog. danaa ko yedd comme ni ma yedde sama doom ndax dama bëgg mu réussir léegi yéen dama ñu ngi leen di gërëm di sant tey wax it nit ñi nañ teel bu ñu yeboon naan xar dana am dana nag ku nekk teel préparer sa bopp ku amul foo dénkaane ñun boo ñëwee fii am nay mbaar am nay kii bu ko dee nga wut sa mbaar ngeen seen mbaar ngeen loué ko mais vingt personnes trente personnes mën na ñëw jënd seen i xar ñëw fii jënd loué fi benn mbaar pour dix jours léegi euh, euh, ngeen fay leen tout de suite am na fi ay berge yu ne fi koo ci jox man kee ma jël sama mu nga ne moom may sàmmal bu weer dema fay ko il faut il faut avoir des initiatives mais di toog a toog bañ xar yor nga sa poos rek nga ñëw fi dama lay jaay xaru xaru xar mu ndaw ci quatre-vingt-dix mille cent mille ngay jooy ah merci beaucoup <laughs> mbokk yi doon seetaan ñu ngi am mbégte mu nekkoon seen waxtaan bu yaatu boo xam ne nii gëstu ci découverte ñëwoon fii nga xam ne moom mooy daral bu ndindi doon ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, yore sàmm gi waxtaan ak dégg ngeen mbokk yi waxtaan bu yaatu bi nga xam ne nii indi nañ ko ci ay ponk yu bëri mu jëm ci yar gi waaye itam ci gestion yi nga xam ne moom mooy daral bi ak projet yi nga xam ne moom loo leen di xaar waaye itam ci opération tabaski bi docteur Sylla mbokk yi moo nekkoon sunu gan mbokk yi ak tamit euh, ñi nga xam ne ñoom la seqaloon liggéey bi fii ci daral bi dig daje ci yeneen jotaay ci découverte ak 28 Pro bi